mais nous, nous bi école normale la ñëw une école j'étais au CES Bopp à Dakar même si j'étais j'étais très nul en mathématiques. mais bon, il nous a fait aimer les mathématiques donc ça je crois que dañ koy sargal bu baax di rafetlu aussi ci ni ngay doxalee ci wàllu ci politique développement la dimbali parce que euh, Michel Debré le am étudiant étudiants qu'est-ce que la politique donne-nous trois définitions la politique c'est le terrain ñu deuxième définition c'est le terrain ñu troisième définition c'est le terrain C'est le terrain pays et tu es sur le terrain pour ñeneen les nga aussi quand je vois l'humain, c'est son intelligence et son courage. Moi, je l'ai vu dans l'épreuve, c'est un garçon courageux. C'est a moment nous sentir engagé j'ai dit tout à l'heure il le mérite dara inédit ñu je le dis parce que dama ko dama ko dund ak moom conseil municipal c'est-à-dire dafa mun encaissé dafa mun a non. dafa mun a encaissé da ngay dóor mu taxaw donc je crois que loolu ku ko def boo gëmul da il faut qu'on arrête de croire que ni def politique daf seen ji ko baaxul man dama wax ni moom man ñaan moom bàyyi naa ko ci politique lu ma waay def baal naa ànd ak nit tamit di ko neexal laa dootu mënati parce que bu ñu gaay sonal joxe sa alal joxe sa tam ku ñu soxla nga ñëw taxaw ba pare ñu bëgg a gëm ni que boo bu ma àndul ak Pape Basirou pour ma wan la ni la dama lay xeex damay dem ànd ak Malick Mbaye uniquement du ma ko sax gëm mais damay wane loolu pour am nu ma la xorñoñale ñun ñi def politique nañu am taxawaay bu responsable li ma wax léegi dëgg la far dafay jot nga dem far fi ngay dem mais da nga koy def ci Pastef quand je vois Demba Diouf li ciy wax la ban Demba boo koy wax dafa naan PRDC tout parce que ay neveu la ñu maase quand je vois Ndeye Tické mais c'est une fierté comme on a dit ak nous tous la même chose la ñu mun a wax ci Abdoulaye Fall courage la am Abdoulaye Fall benn moment dafa métti woon ko am courage je crois que am na benn terme bu leen moom ak euh, kii Ngom Lamine Ngom donc même chose lañ mun a wax ci Baye Serigne nga xamante ni lui c'est un gëm sa bopp mooy philosophie donc loolu la gëm loolu la dawal la même chose la ñu wax ci képp ku nga xamante ni am nga tey lauréat en tout cas dama leen wax leen lii ngeen gis bi Tounkara di wax damay laisser ñu bàyyi leen ko wax parce que benn moment quand il faut nga wax waxoo parce que ñi nga bokkal ngay waxal mais da wax ba nit ñi xam affaire bi mu demee bu baax di rafetlu jotaay bi di encouragé bu baax si latif je esprit lay doxé quoi et puis day déglu quoi bi mu waxé sànq daf ni ma événement bi dama koy teel commencer maniko ma ko bul ko teel a jëlal sa temps l'essentiel essentiel mooy durée bi fexel ba géré ko parce que li day nekk événement nga xamanteni amna ñi nga xamanteni dañ ñaan man du ma 31 décembre damay toog en famille mais le 30 damay dem ci affaire sëy latine lolu nak il faut ñu améliorer affaire bi luñ ci xam ci manquement ñu japp ci en tout cas je suis content de, de remettre ce prix-là à, à, un homme qui est engagé en politique et qui a montré que affaire bi ñeme ragal jamon buy affaire yi dañ ko ému ma leen di xamal leen ñu xam ko pour terminer monde bi moo changé li ngeen di gis ci monde bi nii ñu Donald Trump ak ñuy wax noonu dafa monde bi commencé à da Donc, koy gëm indi lu bees jël affaire du ko je crois que ñun nañ ko nangu parce que

parce que aussi nit ñi day dañuy dem ba léegi dañuy ragale xool site internet parce que tamit nit toog ñu posté lu rafet ci Abdou Mbow nga ñëw toog sa clavier wax ko lu la neex te du la mën a sax xam ndax yaay kan xëy na dëkkaale je crois que je crois que globalement exemple laa joxe pour wane ni que nañ ci doole taxawaay euh, Marème Sylla ñu ngi lay en tout cas sargal bu baax di la nuyu di encourager ñi fi teew ñëpp di ñaan yàlla daal vraiment affaire bi nekk une réussite buy dem Pape Ndaw moom xam affaire bi du je l'ai vu ici à l'étranger mu am taxawaay bu am solo je crois que c'est ce que je voulais dire pour tout le monde en tout cas mon professeur félicitations